bisimila mboo ko internet yi dal leen ak jàmm mel na ni jaan ji nga xamante ni moom la woy takk der yi ya jàppoon du moom rek a nekkoon ca pax ma waaw rango mi ñu jàpp ba tëj ko ci kaso bi du woon lenn lu dul li tubaab di wooyee la partie visible de l'iceberg ndax mel na ni ay rango yu bari ñoo nekk jamono ji ci réseaux sociaux yi kenn ci ñoom di xale bu jigéen bi ñuy woowee Anta Choco daanaka lii mu nekkee mën nañ ko méngalee ak cagatu gu ñu déguisé ndax xam ngeen xale bu jigéen bi xëy na déedéet waaye yéen nga xamante ne ni tàmm ngeen di nekk ci facebook bi ñàkkul ne mës ngeen a yenn ci ay vidéo yi nga xamante jot na ko posté mu am ca melokaan bu kenn mënta nettali di ca wane yaram ba ginnaaw ga oh doy na waa nee na yay yaay dafay wane feemu lawbe waaye moom Anta Choco mën nañu wax ne daanaka moo gën a garaaw kile di rangu dafay jaay yaramam bi ci biir réseaux sociaux yi di business ay cëram ya ngir am ca xaalis léegoo léeg mu def lu doy waar am melokaan bu jéggi dayoo posté ko ca Facebook ba ngir rek mën a mepp góor yu saay yi mel ni moom bëgg jigéen bay bëgg a dee yile tonton saay-saay yi mu ko xaalis moo koy may muy faj ay soxlaam di jënd ay yëre yu cher ak i téléphone waaw lii mooy dund ki nga xamante ne moom mooy Anta Choco moo ne di xale bu ndaw la mu nga judd ci atum 1994 ñaar fukki at ak juróom bennam yi sax matagul moom dafay yónnee ci réseaux sociaux yi ay story toftal ca ay bataaxal yu woyof naan ay moment de relaxation waaye la làqu ci ginnaaw weesu na relaxation ndax ak prostitution la waaw cagatu gu wuute ak gi ñu xamoon looloo waral ba jamono mën ay sec ci selfie gis nga nag anta choco boo yaboo nga dem toogi ndax boo moo yowulee fi nga xamante ne foofu la sa tata rangu jaar foofu lañ la nar a jaarale kuréel yi xeex mbon ci réew mi mel ni jamara ak Mame Mactar bés bu ñu noppee ci yow doo doy bay des soo weddee laajal tata rangu waaw kay après mu jeex Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal